إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala sant bu màgg te kawe te tolloo ak màggaayu sunu borom ak kawewaayam ak sori goo xam ne sunu borom sori na ko léppi sikk ak i ayiba ci manki manki noo ngi gërëm sunu borom subhaanahu wa taala ci tawfiq yi mu nuy defal noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nu ngi ñaan suñu borom mu dolli ñoo defal tawfiq ginnaaw bu ñu dellu siwaatee ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquran mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci suratu nuur ma waxoon la lu dul benn yoon ni suratu nuur day saar bu mag la saar la buy leeral ay xol xoli ñi gëm ya gëm yàlla nag laa ci namm waaye saar la buy leeral ab ëtt saar la buy leeral kër waaye saar la buy leeral ab société saara ngi woo xam ne bu nu ko nafaroon dëgg-dëgg nafar bind yi ci rëccee ñu jële ko wallahi dañuy dund société boo xam ni xel xalaatul woon ni dund mën naa neexee ni ci kaw suuf bal dinañ yëg ni nekkate inna diina inda allahi l islam ndeke diine daal ji tax ñuy wax fa yàlla jooju mooy lislaam nakam mbokk yi xam ngeen ne lislaam day bawul dara loolu la yonent yàlla bi waxoon wala yahud ba waxoon salmaan ni ko yéen day seen yonent bi day moom bàyyi dara lu jàngal na leen ko ba tax maanaam moom nu nit def ba dem dem ànd ak soxnaan sax jàngal na leen ko yahut bi wax loolu saboté la ci jublu woon da doon saboté xam nga kuy jàngale di jàngale bay jàngal nit di ànd ak soxnaan kooku day saboté salmaan ni ko bu dee saboté ngay jaay mal daa ko saboté salmaan ni ko wax nga dëgg kay nu ñuy demee wan ak sax dañu koo jàngal maanaam moom da doon saboté salmaan wan ko ni ko mbir mi di ab saboté waaye aw tagg la fa yéen ci yàlla def noo jàngal ba jàngal ni sax faf ku dem wanak nooy def nooy jëfandikoo nooy seetloo sallallahu alayka ya rasulallah kon lépp lu nuy jariñ sunu borom leeral na ko yéen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam faram fàcceel ñu ko sallallahu alayhi alfan fi subhi wa bin matai bi alfayni maa daafi xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci suuratu nuur muy saaru leer saar woo xam ni moo leen nuy lëndëmal dund gi rawat na ci biir kër yi saar bi da koy feram pàcc lii tax kër jullit jag saar bi da koy indi te bu kër jagee koñ bi jag bu koñ bi jagee dëkk bi jag bu dëkk bi jagee réew mi jag te bu réew mi jagee rek mu daal di am gërëmal suñu borom sunu bind ba la weesu ñoo ngi taxawoon ci waxi borom bi subhanahu wa taala baada audu billahi alsamii alalim min alshaytan alrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsih بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون sunu bind bi weesu tàmbali woon nañ di leeral laaye ji kon nu tàmbali waa ci tey tatmiman lil faida sunu borom alxaafid ibnu kathir mu ni hadihi aadaabun sharciya ak addaba allahu biha ibadahu almuminin wa dalika fi listizam amarahum an la yadxuluu buyutan gayra buyutihim xatta yastanisu أن يستأذنوا قبل الدخول ويس- ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف إلى آخر كلام alxaafis ibnu kathir mu ni laaye jii day ay njàngalay yar ci jullit bi nga xam ni moom nangu na nekk gi yàlla nekk boroomam te gëm ko nangu na nekk gi yonent bi nekk ab yonentam te gëm ko ay ay yar ak i jubbanti moo ci nekk ñeen jullit bi gëm yàlla ngir bu demee kër mbokkum jullitam nan lay def pour mu dugg mu yëglu mu nuyoo suñu ko mayee ndigal mu ñëw dugg si waaye suñ ko mayul ndigal mu delluwaat suñu borom yaa ayuha alladina amanu ee yéen gaa yi nga xam ni gëm ngeen yàlla gëm ni yàlla moo leen war a digal ngeen di def ak yonent bi amul keneen ku yayoo di digle ñuy def di tere ñuy bàyyi lu dul say ndigleeg say ndere da nga koo boot ci ginnaaw ndigle yàlla ki tere yéen ñi gëm loolu laa tadxulu bu leen duggati buyutan benn kër wala benn néeg genn kër wala genn néeg xayra buyutikum bu bokkut ak sa bopp boo moomul kër jàmbur néeg jàmbur bul fa duggati xatta tastanisu lu dul da ngeen a yëglu wa tusallimu ala ahliha ngeen nuyu waa kër ga wala nuyu waa néeg ba ngeen nuyu borom kër ga wala ngeen nuyu borom néeg ba aji gëm yàlla saa bu déggee yaa ayyuha alladina amanu danaan teg ndax am rey ñëw wala nax yi bu dee amr day def bu dee nax yi day bàyyi ci ngëmam wér nag bu ko suñu borom nee bul def day gëm ni def nga da koy jural toskare da koy yàqalit na laa tadxulu bu leen dugg buyutan génn kër xayra buyutikum gudul sa kër benn néeg bu dul sa néeg wala barab sax bu dul sa barab xatta tastanisu lu dul da ngaa yëglu wa tusallimu ala ahliha nga nuyu waa koofa daalikum loolu day su ngeen ko defee xayrun lakum moo gën ci yéen fuuf laallakum amannat bu ngeen ko defee sax loolooy am tadakkaruna di ngeen waaru di ngeen fàttaliku te gëm ni ni ko yàlla y diglee noonu rek la mën a doon waxoon naa leen ni laaye ji ay njàngale fasu na ci bi ci njëkk mooy daganul jullit bi dugg kër jàmbur lu dul dafa nuyoo dafa yëglu waxoon naa leen ni bay dañu jàpp ne yëglu mooy koŋ-koŋ dooga wax asalaamaaleykum fekk déedéet loolu yëpp tubaab la l'islam xamul koŋ-koŋ asalaamaaleykum dëgg la bëgg dàppuñu ko wasiila la waaye du loolu la ñuy tuddee yëglu bi ñi jàpp ni yëglu mooy koŋ-koŋ loola juyoon ak sharia amma fëgg wala sone ndaxte lii moyen la buy tax ñu dégg ma ko ko dara néew ci waaye nag bul ko tuddee ko sa lan ko tuddee yow waaye bu ko askanale l'islam benn ngoo tastanisu borom xam-xam ne baatam al isti tastanisu mi ngi jóge ci istinaas istinaas mooy wértaliku ndax nit ki boo tëbee dugg ci këram te defoo benn geste buy wane ne dugg si nga mën nga koo tiital waaye boo yëgloo mu yëg ni yaa ngi ñëw tiit nga dàqu na kon wéttaliku am na ñu ni baat bi ci loolu la jóge kon koŋ-koŋ ju ànd ak asalaamaaleykum wala asalaamaaleykum wa rahmatullah a adxulu salaamaaleykum wa rahmatullah ndax mën naa yegg si loolu la ñuy tuddee isti istinaas ak istihzaan bal sax am ñi borom xam ñu ne xatta tastanisu mooy ngeen yëglu ñu ne luy yëglu gi mu ne watu sallimu ngeen nuyoo am na ñu ni sax ñaari baat yépp benn bu nekk la muy firi moom moromam benn la kon watu sallimu ala ahliha nga nuyoo waxam naa ne rot na ci sunna boo ne fëggee wala nga yëglu wala nga sone ci moyens yi am tey asalaamaaleykum wa rahmatullah da nga daan teg di xaar ndax danañ la wax dugg sil wala déet boo boo toogee toog déggoo dara nga ni assalaamu aleykum wa rahmatullah boo toogaatee déggoo dara nga ni assalaamu aleykum wa rahmatullah muy ñetti yoon soo déggul dara ah wàññeekul dem abi Moussa al Ashari waxoon na leen def na ko mu ñëw kër Omar ibn Xattaab daal di nuyoo ñetti yoon fekk Omar gi jàpp ah Omar wuyuwu ko waaye bi mu demee Omar mel ni dafa dégg baata Abdullah ibn Qays Abdullah ibn Qays mooy Abu Moussa nu la tuddoon Abu Moussa mooy dàkka na mooy bàyyi Moussa mu ne waaw baat ma dégg du baatu Abdullah ibn Qays ñu ne ko waaw mu ne woo leen ma ko nee leen ko mu yegg si gars yi xool gis ñu daw dabi ko bi mu dikkee mu laaj ko Omar ni ko xaaru sa baat laa fi dégg mu ne ko waaw mu ne ko lu tax nga dellu mu ne ko damaa nuyoo ñetti yoon kenn fayu te yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko nuyoo ñetti yoon fayuñu la dellul te loola ndeke Omar mosu koo dégg xoolal loolu ni mu ni mu ni mu teeraatee rek ni mu jegee te Omar dégg ko woon Omar ku taroon la ci diine yàlla ji te loolu day dëggal waxu yonent bi wa ashaddukum fi diinillah mu ni Omar arfau ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashaddukum fi diinillah Omar ah wa ashadduhum xayaan Ousmane ki gën a tar ci diine yàlla ji mooy Omar ibn Xattaab Omar ni ko ah déedéet di nga indi ku la seede kuy wane lii nga wax dëgg la boo amul seede dinaa la taw. te wallahi bu amuloon seede Omar Thiaw ndax yàgg naa Thiaw ñu mag Abi Moussa ci loolu Abi Moussa al Ashari jaaxle lool waxoon naa ne am na riwaay ba mu di ko di ko nettali gars yi sax saxaaba yi dañ doon kaf di ko ree di ko naa ko yow rek tey tey nga dee yow rek tey nga dee fekk dañ doon kafanteeg moom kan moo jub ci saxaaba ya su ma koy fàttali benn saxaaba bu ndaw kan ci saxaaba ya ah Abu Saïd al Xudri radiallahu anhu moo jub ni ko tey ki gën a nekk booy ci mbooloom moo lay di dimbali ànd ak moom ba ca Omar ni ko hey Omar kii li mu wax dëgg la ndax fekkee naa ba ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam xam nga la ko ci Omar tegal bul dem mukk nga yaakaar dama laa bëgg a tuumaal waaye dama laa bëgg a wan ni lii diine la lu ciy waaye wax di day leer dama ne Omar bu dikkoon fii sundéy bi nga xam ne lu neex waaye wax damay day dóor ba loxo bi métti rek mu koy retraité ci dóor ndax fi mu nekk nii rajo yeeg télévision yeeg taaxuraankat yeeg gàmmkat yeeg mag wallahi léeg-léeg da ngay jégg loo xam ne ah waxuma la da nga tey mer ndax du dëgg déet ay nee da lay jàpp ndax kàcc yu mel nii ndax fan la ñu ci toog bu koy xalaat loolu rek ngay moo la yéeg wallahi dinañ nga déglu kaset man au lieu que nga mer déedéet yéemu na lay jàpp da nga naan kàcc yi ki ka doon xalaat ba mu koy xalaat daa toogam daa taxaw doo xam sax ndax ni mu soree dëgg kon ñetti yoon nga yëglu waxoon naa leen ne Saad ibn Waqaas defoon na ko ba mu dikkee yonente bi saa sallam ñëw këram ne asalaamaaleykum wa rahmatullah Saad dégg ko ni fat mu ni yonente bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah Saad dégg ko ni fat ba muy ñetti yoon yonente bi dem yoonam rek Saad génn katafa ko bi mu génnee katafa ko yonente bi ni ko mooy nu yoon naa ñetti yoon ne kon gis nga yonente bi wallahu ma uridu an uxaalifakum ila fi ma ila ma anhaakum an du ma juyoo yéen mukk lu dul lu ma leen tere xanaa moom loolu dama koy bàyyi gis nga mooy njëkk a jëfe li muy jàngale sallallahu alayka ya rasulallah abu musa saar na waqas ni ko dégg naa la de nuyoo boo nuyoo rek dégg naa la waaye comme assalaamu aleykum wa rahmatullah mooy jàmm yàlla yàlla na nekk ci yéen te yonent bi bu ñaanee yàlla day nangu moo tax a bëggoon nga baam ko ñetti yoon ci la koy saar bi yegg si lu mu yegg see yonent bi ca la ko waxee woon ñaan boobu ngeen di gis loolooy josaan ba waxoon naa leen ko ci dara ba weesu akala taamukum al abrar wa sallat alaykum al malaika wa afara indakum as-saimin ñaanu sunna boobu yonent bi saar la ko ñaanaloon mu nekk sunna ci nit bu la joxee nga lekk ba pare nga defal ko ñaan boobu ñu bari dañuy yaakaar ne bu leen di joxee nga ndogu ndax wa afara indakum as-saimin ci déedéet bu la joxee nga lekk même bu la woon añ boo paree ñe loolu nga koy ñaanal bu la wooyee reer soo paree loolu nga koy ñaanal ndékki kadaalika kon gis nga beneen bi ci des mooy sooy nuyoo bul dikk jàkkaar la bunt bi face à face ba léegi di leen bàyyi xel teggin yi dars bi defoon naa ko waaye boo gisee aaya ji xam ngeen dars bi pas tafsiroon naa ko moo mujjoon ci tafsir bi soo gisee ma dikki jaaraat ngir baamuwaat ndax solo ci nekk dafa bari soo ñëwee bul jàkkaarloo bunt bi ndax innama joxe al istidaanu li ajlil basar yent yàlla bi nee na yëgloog nuyoo bët a tax ndax bët bañ a xool lu mu warul xool boo ñëwee kër jaago bul jaakaarloog rido bi bul jaakaarloog buntu kër gi bul jaakaarloog buntu néeg bi nooy def da ngay wetu ndeyjoor yar na tan aw nga wetu yasra tan bul jaakaarloog buntu riwaaya bi koy tere day war ni jamono jooja sax buntu néeg yi amuñu woon néeg yi sax amuñu woon ay bunt lii mu lay woon ak tumuraanke goo xam ñu ragal yàlla ñii ñoo doon dund loola bu fekkee ñëw la nga bañ a jàkkaarloo bunt bi di wax asalaamaaleykum ba muy ñett yoon buñ la joxee digal nga dugg ci buñ la joxul digal nga def li aaya ji di bëgg a wax di wax beneen bi ci des mooy yëddu kër jàmbur dafa xaraam léeg-léeg nga romb nit romb tàkkati jàmbur gàtt nga nit léeg-léeg li bi naaw nga ni nii léeg-léeg nga ñëw kon kon kon kenn faalewu la nga ne waaw kenn dafay nekku ta borom nii ba bu yoroon ak rab mu ni ko pëccëx ci sa bët bi bët bi tuuru attekatab l'islam bu ñëwee xam nga lan lay wax danaan ku tuur bëtam nga ne man mu ni lu mu def nga ni ko daa yërdu sama kër mu ne la demal jàmm rek nga yam dara du la di fekk nga ne ma la tax ma ne la xadis wér moo ci ñëw te mi ngi ci Buxaari Muslim yént yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam law anna mraa law anna mraan itala alayka bi gayri idnin fa xasabtahu bi xadaatin fa faqata aynahu ma kaana alayka min junah benn waay bu ñëwoon di yërlu ci sa kër wala sa néeg ci lu dul ndigal nga yoru xeer wala dara nga sànni ko ko ba fukk bët ba mu ni sa yoon néew sa lii benn riwaaya kese waaye ñëw na ci yeneen riwaaya am na saxaaba bu ko def fekk yonent baa ngi yoroon lu mel ni ràbb bi ko saxaab bi ko saxaabi bi yonent bi yégéen da doon yërlu mu ne ko su ma xamoon ni yaa ngi yërlu sa bët bi laay fëkk riwaaya boobu noonu la ñëwee kon dagalu nit ki di yëddu wala muy yërlu néeg jàmbur ndax day nelaw ndax day nangam di si yoon néew ci maadaama juguñ na ndigal rek dellu léegi ñun nag ñàkk a tarbiya tarbiya bi islam moo tax damaa yàkkamtee ba ma jógee daa sore moom amaan na boo demee day nelaw jiw moom ni mu mënee nelaw même bu mënee nelaw seen ñëw ci yàlla ba muy joxe àtte yi xamoon na ne am na ñoo xam dañoo mën a nelaw ba ku leen nuyu duñ la dégg waaye suñu borom pour suuraalewul programme boobu ña mën a nelaw ba ku leen fëgg duñ dégg suñu borom suuraalewul leen ci biir aaya ji comme suuraalewu ko bu ko suuraalewu su doon am na benn solution buñ ko war a jël bu dul dellu suñu borom dana ko sóoraale ci aaya ji ndax moo la gën a xam ne am na ñuy mën a melal ci nit kon waxoon naa leen tamit ni bokk na ci liñ mën a jàngee ci laaya ji mooy su fekkente ni da ngaa fëgg wala nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah su ñee la koo kan la looy wax da nga naa man la man la la yonente bi kare sallallahu alayhi wa sallam gis nga bàyyi gis nga gis nga dégg ngeen lim tont lim tont mooy li ñuy dund salaamaaleykum soxna nga ne man a yow la kat waaye mën a waay di gëdd daal yow dafa mel ni yonent bi ngay gëdd sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo la tere li nga wax ma man la waay man la waay yow kan koy gëddante yonent bi saa sallam yonent bi moo ni bu kenn duñ laaj kenn koo kan la nga naan man a benn bis jaabir daa ñëw nee na bàyyam dañ ko yónni woon fekk bor bu mu doon fay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw mu ni koŋ-koŋ mu ni kookan la yonent bi ni kookan la mu ni ko man yonent bi ne mana mana mana mana mana mana daal ni pat jaabir mu ni ma xam ni kon baa tax mana mana neexul xam ne yeneen riwaaye mu ni bu ñee la kookan la bul wax mana lan moo tax ñuy tere mana ah yow la kan xam nga mana moom du dara mana mana moom ñëpp ko man mana ñëpp ko man man du ma dikkee nga di ko kan la man la mana kee gi dik suni ku la wax mana boo ko waxee solution lay doon pour ñu mën laa wax yegsil wala déet faw nga wax yaay kan yow la kan nga ni man la jiw waaw nga déglu ba xam dinañ la wax yegsil wala duñ la ko wax kon jaadu na loolu tamit ñu xam ko beneen bi ci nekk moom mooy maanaam su fekkente ni da ngaa nuyoo ñetti yoon bun la fayu su boobaa da ngaa war a génn nga dem da ngaa war a dem te loolu mooy li gën a wér mooy li gën a dëppoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yii ay jàngale yoo xamante ni la ibni Jurayj doon wax rek mu ne dégg naa Ata mu ne ibni Abi Rabah mu ne Abdullah ibn Abbas nee na salaatu ayatin jahadahunna annaas ñetti aaya ngi yoo xam nit ñi daf leen dañ kaa weet di fab mu ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla mu ne qaala wa yaquluna inna akramakum inda allahi a'zamukum baytan su muy nit ñi moom dañ naan ki gën ci yéen mooy ki gën a ngand kër mbaa ki gën a rafet oto mbaa ki gën a ngandam dara defe naa ñun noonu la ñu nattee mu ne kon laay ji bokk na ci jiniñ ji weet gis nga beneen bi ci des mu ni maanaam ak ngay yëglu ci soo duggee fa nga xamante ni mooy kër mu ni boo xoolee nit ñi tamit weddi nañ booba da ngay gis nit ñi maanaam da ngay dikk rek daal ni carax dugg ci biir xataa leen na ci borom xam-xam yi dañuy wax ni sax nit ki buy dugg ci kër kër goo xam ni moo ko moom soxnaa ma fa nekk sax la gën donte di waajib foofu nag la gën mooy mu wax asalaamaaleykum su dee sa kër nag wala nga tukki woon tukki bu sori ñëw lay sunna mooy bul bette te bala ngaa dugg na nga asalaamaaleykum bal am na ci salaf ñoo xam ne buñ musaa dikk ba seen kër dañuy fëgg ba pare daal di xëjale ko voilà daay tab ngir buñ ko déggee xam ne di way ñëw am ñoo xam ne bu ñu dikkee dañuy xëjale ñu xam ne di way ñëw gis nga lan lañ istinbaat ba génne àtt yooyu mooy yonent bi dafa tere nit bu tukkee mu ñëw mu bett soxnaam tey fi mu nekk nii boo demoon Ziguinchor nga am fa cinq jours surtout jamono ji nga xam ne xam nga moyen téléphone sax dafa dafa yombal mbir yëpp allo maa ngi ñëw te it koo xam ne rek allo maa ngi ñëw affaire ragal laag affaire organisé déedéet loolu mooy l'islam allo maa ngi ñëw dinaa ñëw tey dinaa faral ci tey loolu mooy sunna waaye jóge foofu jigéen soo ay sama kër la woon rek ak ne sarax ni tëll ni dugg sa biir néeg déedéet sunna da koy tere sunna da koy tere de boo ñë alu maa ngi ñëw ci jamono yi alu maa ngi ñëw waaye jamono jo alu maa ngi ñëw amagul woon boo ñëwee salaf dañ daan wàcc ca jàkka ja julli fa ñaar rakk sant yàlla mi leen defal tawfiq ñu tukki dellu si mu ne demal nee sa yaay diw maa ngi ñëw sama papa diw yegg si na nee na mi ngi ci jàkka ji sunna day bañ nga ñëw bett sa soxna melokaan woo xam ni xaw a jigéen bu borom këram nekk fa lay tuwaare toog fa lay mel na mu war a mel bu borom këram tukkee ba ah xaaral ma def li ma war a def boo dikkee fekk muy doog a génne ca waañ ma nag ci lim ñuul kuk ñaaw loolu la sunnay bañ allahu akbar lii bu ñu la waxoon ni l'islam ci boppam moo am jot di faram-fàcce yi dëgg yéemu ci yàlla te nii ma la ko waxee noonu la ci ay riwaayaat rote kon loolu mooy sunna borom bi subhanahu wa taala mu ni lu lu ci topp fa in lam tajidu fiha sunu borom subhanahu wa taala mu ni fa in lam tajidu fiha ahadan bu ngeen fekkul kenn kenn ca kër ga wala bu ngeen fekkul kenn ca néeg ba fala tadxuluha bu leen dugg ca kër ga bu leen dugg ca néeg ba xatta yudana lakum lu dul dañ leen a jox ndigal dugg leen te kéemaan mooy boo dugg tey sax amoon sañ sañu tey boo ne asalaamaaleykum ñu ne la wa aleykum salaam ndax da ngay dugg nooy def da ngay xaar ñu ne la bismillah bu ñee la bismillah nga yegg fooy toog ci kaw lal benn ci sees bi ci suuf wala ci kaw wala ci sees ah yéen ñëpp jum ngeen kee nee da ngay xaar bañ ñu ne toogal loolu moo dëppook xadis waxuma xalaat xadis laa soxla soo ñëwee ba ci kër jàmbur mu ne la bismillah nga dugg si naka waa kër ga imdalaay baarikàlla bu jëmoon fii ba déwén te waxu la toogal waroo toog allahu akbar mbokk yi tax ñun ñu ngi jëfe njàngal yi imdalaay baarikàlla imdalaay baarikàlla xanaa mu jox la ndigal ne la saa boo ñëwee toogal waaye illaa mu ne la toogal loolu mooy sunna te booy toog moo lay wax fa ngay toog même bu nee la toogal sax bu nee la toogal faw nga yàccaaram ci di xaar ko war a toog amaana nga toog ci fauteuil te bëgg nga toog suuf nga bëgg nga toog amaana nga toog ca lal ba te fekk ca fatay ba la bëgg nga toog amaana nga bañ a toog ca lal ba fekk moom moo bëgg nga toog ca lal ba kon gis nga mbokk yi wallaay sun sunna fii boo amul chance bu ñëwul chance day nekk ay étiquettes yu ni takk rek étiquette yu ñu naan diw moom la ay marque yoo xam marque jaune noir xam ngeen marque jaune noir peinture boo xam fii les jaune fii xonq nga xam ne ku ko seen xam ne les oto la xam nga loolu dafa yomb oto boo xam dañ koo peinture ci kaw jaune noir def benn tableau ko tableau ca kaw di wane ni kii tagdi la tudd loolu amul solo de loolu mandarga mun koy xamee la waaye est ce que loolu tax ñu naan tagdi bi boo fekkoon ñànkarul oto amul voiture amul radiateur amul dara amul yi fere amul yi pneu yu baax nga pindir ko ba mu rafet def ko taxi est-ce que day tax mu tudd taxi déedéet loolu laa la bëgg a wax mooy sunna si da ngay dem ba daanaka aw xott ngay dem xott oto wu baax wu taxaw amul benn njariñ kon lii faw ñu di ko dund ndax lii yàlla sa tala noonu lay waxal sunu borom ni fa in lam tajidu fiha ahadan bu ngeen fekkul kenn fala tadxuluha bu leen dugg xatta yusana lakum lu dul dañ leen jox ndigal loolu mooy lan su ma nee la woon yaa ngi soo ñëwee fekkoo ma fi tijjil dugg loolu mooy xatta yusana lakum alu ah man de maa ngi tëkkal fekku ma fi kenn de mu ni la tijjil dugg loolu mooy xatta yusana lakum ah sama kër de mën naa am lu nga fi ñëw doo waaye soo ñëwee fekku ma fi rek may naa la ndigal nga dugg loolu mooy xatta yusana lakum wala nga taxaw fa di xaar ba mu yegsi ni la sawaay yegsi loolu mooy xatta yusana lakum ak yi mel ni ñoom kon sañoo dugg néeg jàmbur lu dul moo la wax may naa la ndigal saa boo ñëwee duggal bàyyil xel bu baax ci la may ndigal saa boo ñëwee duggal ndax xam ni chaque jour da nga fay am soxla ki ne la saa boo fekkul may naa la ndigal nga dugg ki nga ni allo mu ni la duggal ki nga xaar ba mu ñëw mu ni la duggal ak ka ne ca biir ni la duggal ak ka ne ca biti ni la jiituma maa ngi ñëw loolu lépp xattaa yu gën a la kum lay teg kon sañoo dugg néeg jàmbur lu dul dara jox ndigal gis nga néeg wallahi mbokk yi gis nga doxalin bu mucc ayib wii tey yàlla defal na ko wallahi ci tawfiqaati rabbina subhaana te ñun xamuñu ko da ngay am néeg bu ñuy tuddee saal salon am néeg bu ñuy tuddee chambre à coucher néeg boo xam ni sa néeg a bopp la saxaaba yi amuñu woon loolu ndeysaan mooy ma tewu ko woon ndax nit di doomu aadama di fanaan rawatina moom ak soxnaam yu bari yuñ bëggul ñu gis ko dafay ne léeg-léeg mën nga ni salaamaaleykum fekk néeg ba mel na luñ bëggut nit gis ko wala luñ bëggul nit gis koo nga fa tege am nga ci droit waaw waaw su dul lu araam la am nga ca droit sa biir néeg moo xam ci lu ñuy sonn la moo xam ci leneen la ak lu mën a doon am nga ci droit ndax sa néeg la léegi nag bët innama ju'ila al-istihza li ajlil basar bët dafa sox boo duggee nekk jàngoor xool montre ba ba pare xool fauteuil ba xool télé ba yooyu yëpp nag ci sunnay tere la bokk yonent yàlla bi ne sallallahu alayhi wa sallam jaaduwut nit dikk kër jàmbur muy def nii xoolal subhanallah moo tax daanaka daal man li ma bëgg a wax daal mooy dafa mel ni léegi fi mu ne lii bu doon nit kuy doog a tuub ñu jàngal ko lii rek rek rek rek avant muy ñëw ci jullit bi bu ñëwee du xàmmee l'islam la benn yéefar bu tuub doon wax mu ne alhamdulilah bi ma xamee l'islam doog a tuub dañu alhamdulilah bi ma xamee l'islam doog a tuub mooy ndax man lan ma jàngal ci l'islam bi ma dikkee fekk ma nit ñi di ko dund su ma xamuloon l'islam doog a tuub musiba dal na ma te wallaay wax na dëgg kàddu gu gàccewu la nag bu metti la ci xol waaye wax na dëgg ndax yii yëpp benn lañ ci dund saa saa sa bëgg na def nii ba nga tege ci loo xam ni gis nga am na yoo xam ni awray doomu aadama la xam nga bu ñuy awra dañuy defee ni mooy sa yi nga nëbbu déedéet am na yoo xam ne awra la gis nga lu ma la ormal ormal ormal am na yoo xam ne su ma dikkee ba sa néeg sama ba tege ci rek nga lu naan tap ci sama xol orma ja day wàññeeku parce que daam yoo xam ni yàlla moo ko def mu nekk awra ñu koy war a làkk soo gisee lislaam naan bul dugg xaaral ñu jox la ndigal buñ la waxee dellul dellul lii yëpp parce que lii may bañ a tudd lii xam nga lislaam lii lii suñu borom def nii yonent bi da koy def de et rek di wër affaire bi di wër rek am lu ne ca digg ba te kenn du ko wax ndaw si daal di kenn yonent bi man de damaa gis baax nu may def mu ne ko boo booy set da ngay jël coton jël parfum nga setee ko ndaw si ne ko nu ma ci setee mu ne ko nga setee ko mu ne ko nu ma ci setee waaye nga setee ko waaye yonent bi daal di wax loolu noppi xam nga lu tax boobu am na mbir yoo xamante ni dees ko tudd Aïcha mu ni maa ni kon nii yóbbu ko ba ca ginnaaw buntu ba ni ko eh yonent bi lii ak lii ak lii la wax kon am na yoo xamante ni kenn du ko dugg direct kon yii nga xam ni moom la ñuy nëbb suñu borom du ko détaillé ci saar bi parce que daa bari yooya nag suñ jàngee yii rek daal di comprendre ya ca gannaaw suñu borom mu wa in qiila lakum buñ leen waxee irji'u dellu leen wa in qiila lakum irji'u buñ leen waxee dellu leen farji'u mu ni dellu leen suñ leen waxee dellu leen mu ni dellu leen huwa azka lakum loolu moo gën ci yéen bu leen waxee dellu leen sunu borom mu ni dellu leen lii ma man mooy fàttali waxi kenn ci salaf ñun boo leen buñ ne la dellu leen looy def da ngay mer day jaay waaye jaay affaire man ay dellu ñun ñëpp a am kër waaye gis nga yu mel ni léegi yow daf te boo bàyyi woon xel dëgg-dëgg dafa mel ni yow sa gëddaate gi sa wàccaxi loxo yi yàlla ngay waxal ko yonente ndax kii li mu def yàlla moo ko sant te maa ngi teewlu kenn ci salaf damaa xamatu kan na tur tur bi laa fàtteeti waaye maa ngi wax laay jël sama xel yegg si ci moom ne na suu tut tut tut laay ji jéem naa koo dund ba sonn mënumaa fexe ba am ko xam nga jan laay nee na moom daa bëgg ñëw kër jàmbur mu ni ko way daa xëy la ko mari jaww mu dellu ndax mu jëfe aaya bi nee na ba ma déggee aaya ba tey maa ngi koy jëfe mënuma koo am allahu akbar maanaam moom dafa bëggoon a ñëw kër jàmbur ni asalaamaaleykum ñu ni ko déedéet tey mënuma laa recevoir mu daw xel mu kontaan lu tax ndax nee na aaya ji mu dégg da koo bëgg a jëfe waaye ji ba léegi mënu koo jëfe subhaana rabbina al aala xoolal ñun ñu doon def yow leen lay wax nga di ci mer ñoom dañ dul bëgg ñu deen ko wax wa ida qiila lakum irji'u suñ leen waxee dellu leen farji'u yoom xatada moo koy nettali mu ne kenn ci baadul muhajirin ñi mooy wax ni ah laqad talabtu umri kullahu hadihi al aya fama adraktuha mu ne damaa jéem a jéem sama dund gi yëpp jéem naa lu ma man di dem kër jàmbur rek ngir bëgg ñu ni ma dellul ma dellul ndax ma jëfe aay bi te ba léegi mënuma ko am allahu akbar undur saxtaana ma baynana wa bayna haula ak a ñoo soree suñu borom ni suñu leen waxee dellu leen dellu leen huwa azka lakum looloo gën ci yéen allahu akbar amaan na nga fekk fa lu la neexul amaan na nga dégg fa lu la neexul da ngaa ñëw kër sëriñ bi di jàng si nga yor sab téere nga ormal sëriñ bi lool bëggoo sax sànq lañ mu teg ci kaw sànq sëriñ bi ndax moo lay jox xam-xam fekk soxnaa ngi soxna sànq ci biir néeg bi di ko wax lu mel nii xamee ko du sawet tàngi jër boo yegsee mu ne la xaaral ba ci kanam demal nga xaar ba ci kanam loolaa gën a jur jàmm bala nga faa dégg lu la ñeexul parce que Ibn Abi Zayd ndongo yi loolu lañ ko doon wax naa ko faseel sa jabar jënd tax parce que dañ daan dégg lu mel noonu soxna si di ko wax ay wax yu kéemaane. kon wa idaa qiila lakum irji'u farji'u dellu leen suñu borom ni dellu leen huwa azkaa lakum loolu moo gën ci yéen. wa idaa qiila lakum irji'u farji'u buñ leen waxee dellu leen ah sa waay man de tey damaa xaw a jàpp de. nga naan waaye yow man ma jóge ba sori bàyyi sama yitte yëpp nag ma ne la da ngay ñëw la tere yëglu ci jamono joo xam ne yàlla yombal na ne yëglu bu doon ni téléphone gis nga wallaay léeg-léeg wasaay yi nga xam ni ñi ko defar sax amaana yàq lañ si jublu woon ndekete yàlla moom dafa programmé woon addina bi ñu noté noo xam ni même ñii programmé loo xam ni yaa xam ngeen ni kaset bii ñuy enregistré yéena ma gën a xam ni ka ko njëkk a defar xam ngeen ni si tafsir alxuraan taxu doon mu di ko enregistré waaye fekkee ma koy xam naa loolu xam ngeen ni lii ka ko njëkk a defar génne ko ci àddina pour ñu ciy enregistré dars yi taxul woon waaye yàlla dafa programme àddina bi ñu noté noo xam ni mbir yu bari paaka ñaari bor la ko nit ñi génne yàq tax leen a jóg bañ nañ ko ba chaîne bi sax xool nañ koy tuddee fii chaîne la midi waxuñu chaîne alquran te alquran da ciy tege xool mooy yooyu yàlla defal na ko pourquoi pour ñu mën cee jariñu allo man ne damaa bëggoon a ñëw sa kër ndax man na maa ñëw nga ni ma ah du ma ko ne yaa xëy li boo ko deful dagg nga sa kër ba ñëw fekkoo ma fi léegi perte nga sa part kon su fekkee da ngaa ñëw fekk nit ki jàpp fekk muy nelaw fekk mu bëgg a nelaw fekk muy liir fekk muy jàng fekk muy waxtaan ak waa kër fekk mu am ku mu amal rendez-vous yooyu yëpp ay mbir la yoo xam day gaar moo tax yëg lu am solo moo tax yëg lu am solo soo organisé dum na bare ku may seet day am ay rendez-vous rek léegi tey ñu dëkkal la foo dëkkul nag te gis nga te loolu mooy lislaam jëla beneen bi ci des mooy maanaam nuyoo tamit jàmm ngeen yendoo baaxul de loolu du nuyoo jàmm ngeen fanaane loolu du nuyoo de bonjour loolu du nuyoo bonsoir loolu du nuyoo de ak lan ci li ngeen xam salaamaaleykum salaamaaleykum man li ma gën a yem mooy salaamaaleykum man wax dëgg yàlla li ma jàng ci luuxa lépp salaamaaleykum laa mënta fexe ba firi salaamaaleykum man wax dëgg yàlla xool ah xëy na damaa luuxa sëriñ bi moo tax ma ne du ma koo firi waaye salaamaaleykum moom ba léegi man xamaguma lu may teg xam am na baat yoo xam ne sax boo ko tekkee dana yàqu waaye leneen lay firi waaye salaamaaleykum moom man xaw ma lu mu doon ak baat yi nga xam ni jóob njaay da ngay fuyee suuf ndeysaan suba taxawal rek allahu akbar ñu ngi doog a daje suba teel ndeysaan waxagoo waxaguma kenn ku nekk ñu soxla jàmm nga dajeeg man jóob ñu leen njaay jàmm ngeen fanaane jàmm rek nga dem ma dem ñaanaloo ma ñaanaluma la allahu akbar waaye lislaam a baax ci ñun li amar doon wax naan lislaam danoo fekk ne ay nit yu torox mu ñëw teet dal na fu man ci wutee teraanga fu dul lislaam fa la ñuy toroxee fa la ñu yàlla toroxale assalaamu aleykum wa aleykum salaam waaw nag gis nga suñ paree ca lool nag keneen ay jóob ak njaay kooka nag sa yoon néewtu yow miy jàngale lislaam nag loolu moom am na aada yoo xam ne fii bàkkaar néew ca lislaam du ko tere jàmm ngeen fanaan jàmm rek indalaay baarikaal yooyu bàyyi bàyyi koog ñoom waaye nag na la war a ñëw ñëw ba pare suñ paree nag jàmm nga fanaan jàmm rek jàmm sant li gars yi tuddee jàmm sant loolu sunu aada la te jàmm sant lislaam bañu fii ak lañ koy wax bon kon mi ngi noonu loolu tamit ñu bàyyi ko xel sunu borom ne wa ida qiila lakum irji'u farji'u bu ñee leen dellu leen demal munu ma laa ci recevoir tey demal huwa azka lakum loolu moo gën ci yéen sunu borom ni wallahu sa borom yàlla bima taamaluuna ci li ngeen def alim aji xam la mooy alimun bima taamaluun sunu borom yàlla aji xam la li ngeen di def boo yëndee kër jàmbur xam na boo ñëwee ci yëglu woo xam na buñ la nee tey mënuma laa recevoir nga mer dem defe ne waa ji nga mere fekk déedéet yàllaa santaane nga mer ca lam santaane yàlla mu ngi xam na sunu borom ni laysa alaykum junaax du ngeen am benn bàkkaar an tadxulu ngeen dugg buyuutan kër goo xam ni wala néeg boo xam ni gayra maskuunatin kenn dëkku ca fiiha mataaun lakum ci am nga fa ay bagaal lu mel ni magasin lu mel ni néeg boo xam ni pour gan kese lañ ko préparé loo xam daal di pour dëkkuwaay waaye ay bagage moo fa nekk nga am ca aajo sunu borom ni su boobaa mën ngaa bañ a nuyoo waaye boo yëgee ni ñu tëgg mën a ngay nuyoo xam nga néeg yooyu li tax aasi bi ñu may ni ko mooy li ëpp koo koy fëggal di ko xaar fa lay wax bismillah dafa dul nekk waaye boo yëgee wala nga yaakaar ni am na ku fa dugg fëggal doo ko nuyoo kooku tamit lu ma tam borosaale mu mu dugg mu dugg mu yóbbaale ko mun laysa aleykum junaax amu leen benn bàkkaar an tadxulu buyutan ngeen dugg ci kër goo xam ne wala néeg goo xam ni gayra maskunatin kenn dëkk fa fiha mataaun lakum da ngeen fa am ay jumtukaay waañ ba pour fanaanu kaay déedéet kon waañ ku fay dugg mën ngaa dugg sans nuyoo sans yëglu waaye bu la wóoree ne am na jigéen gi togg ci biir waañ bi nag ndax da nga yegg da nga ne fiha mataaun lakum ni jarax dugg déedéet gayra maskunatin li ajli laa yujadu fiha ahad sabab si mooy du fi fekk kenn en général kon fa ñu ami bagage wala magasin ba dañ fay dugg sans yëglu waaye ci kaw bu ñu jàppee ni kenn newul wallahu suñu borom yàlla mu ne yaalamu aji xam la maa tubduuna li ngeen di lëbb maa tubduuna li ngeen di feeñal wa maa taktumuuna ak li ngeen di lëbb allahu akbar yàlla subhanahu wa taala xam na li ñuy feeñal ak li ñuy nëbb kuy jaay yaru yarulu ak gëm-gëm sunna di ko wan nit ñi te lii jëfewoo ko yàlla mu ne xam naa kuy ñëw kër jàmbur di yëddoo ko yërndoo ko def ja tere yii te nit ñi yëguñu ko yàlla mu ne xam naa ku fëq xudud allah yii sunu borom mu ni xam naa ku ñi mënul laa recevoir nga daal di gedd mer sunu borom mu ni xam naa ku ñëw kër jàmbur fu ne nga gën léeg-léeg sax amaana sax nga def nii nag soonu soonu lu fekk yaa nga yërbu lu nekk sarandal ka sunu borom mu ni xam naa borom néeg moom ba xamul yàlla xam na borom néeg bi bu fekkee dalaa toog da ngeen toogam yàgg borom néeg bi génn nga sànni sa bët xool xool xool tànku lal ba ron lal ba ginna suñu borom ni wallahu yàlla yàlla xam kon mbokk yi ragal yàlla subhanahu wa taala ci buntu bi lu am solo la wallahu yaalam yàlla subhanahu wa taala mooy aji xam ji wa antum la taalamuun yéen xamu leen suñu borom ni loolu mooy li gën waaye yàlla day subhanahu wa taala xam na li ngeen di feeñal ak li ngeen di lëbb suñu borom fàtkallu rek nan la ñuy duggee kër jaamu léegi dafa mel ni liñ doon wax lépp ñoo ngi jëm ci jumtukaay yi tax ñu yegg ci nit ki tey nag yegg si nañ ci nit ki borom bi subhanahu wa taala indi ñaari aaya yoo xam ni benn baa ngi jëm ci góor ñi benn baa ngi jëm ci jigéen ñi suñu borom ni qul lil muminin waxal jullit yu gëm yàlla yi ñi nga xam ni gëm nañ ni yàlla moo leen bind moo leen moom te dina leen xisaab ëllëg yaxdut na la ñuy sajj min abtaarihim na ci seen bët yi ah yaxuddu la ñuy sajj min abtaarihim ci seen bët yi wa yaxfadu ñuy wat furujam ci seen awra yi bañ a janjaalo wala def lu yàllay tere dalika loolu buñ ko defee azka lakum moo gën ci ñoom fuuf buñ ko xamee buñ ko xamul inna allaha sabaram yàlla nag xabirun aji xam la bi ma yasnaun li ngeen di def ku wane ne yaa ngi sajjee xet te yaa ngi sàccee xool suñu borom mu ni yaalamu xaainata al ayun wa ma tukfi sudur laaye ji laaye ju mën a def ay taxaw la laaye njàngale ju am solo ci jullit bi sajj ay xetam ci lan imam ju mag Cheikh Abdourahman ibn Nasir as-Saadi yéem na ma lool ni mu tafsiree laay ji laay ji ñu bari ci mu fassiru ni boo ci delloo dañuy wax lu jëm ci diggante góor ak jigéen waaye Cheikh Abdourahman ibn Nasir as-Saadi mu ne aaya ji ëpp na loolu te wax na dëgg yegg na ci ba taar taari àddina yi nga xam ne boo ko xoolee mu fitnaal la sax yooyu yardut na min abu sarin da ciy dugg allahu akbar te aka am solo aka wax mu am solo bal ki nga xam ne yàlla da ko natoo feebar yaram yu mel melokaan woo xam mu doy waar la nga xam boo koy xool sax mën naa yaakaar ne yow da nga koo xeeb mu ne yaa ngi koy fitnaal wala nga fitnaal sa bopp boobu sax da cay dugg aka wax dëgg suñu borom ni waxal jullit yu gëm yàlla yi nañuy sajj seen xef yi maa maanaa sajj xef ndax mooy su may dox ma sëgg nii du ma xool kon ma mbëkk batu naa suñu borom waxut loolu ndax mooy su may dox ma gëmm du ma xool kon ma fakkat sallu ci xeer suñu borom waxul boobu waaye lam wax mooy nit ki buy xool na xool lu am njariñ xool ca la ca yam te am ca aajo jigéen jii ñëw ah ànd ak soxnaam góor gi ñëw ànd ak soxnaam kii sama soxna la nga siggi xool ko ngir xam ko rek sëggal dara néew ci loolu am na ñuy wax dara dara néew na ci déedéet am nay tegtal yu bari dara si biir ñëw dana gën a mottali xaadi bi day àtte diw mii ak diw ñooy àtte ñooy àtte faw ma xool kii xool kee xool ba ngir xam aajo xàmmee rek sëggal dara néew ci waaye saa boo xoolee gis loo warul gis rek sa jixet day daal di war mooy delloowaat wàcceel sa bët loolu mooy tajul teg sooy dox xoolal lu tolloog mètre yi sa kanam rek ba nga sànni bët ba ca kaw loolu tamit day dugg ci yaxu duumin absaar yi mbokk yi mbaa xam ngeen ni bët kenn ci borom xam-xam yi day wax ne day bët ndaw la loo xam ne seytaane da koy utilisé pour bëgg a yegg ak yow foofu bëgg a yegg lu mel ni lan léeg-léeg xam ngeen mbokk yi seytaane su la bëggee njaaloloo wala mu bëgg laa saay saayloo day tàmbale yow bu sori la wax kam arab la naan fa nadaratun fa ibtisaamatun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaun mu ne xool muuñ wax joxante rendez-vous daje xoolal jiitu kon mbokk yi xool ci boppam musiba ju rëy rëy rëy la kenn ci borom xam-xam day wax ni saa boo sànnee sa bët saa boo sànnee sa bët yabal ko mu nekk sa ndaw mu ni wóor na leen dina yónnee sa xol leetar bu bëgguloon mu yegg sa xol ba saa boo sànnee sa bët boyal ko muy xool lu ko lislaam xool lu dana yónnee leetar ci sa xol boo bëggul mu yegg fa wa kunta mata arsalta tarfaka raidan li qalbika yawman as'adatka almanadiru mu ne raaytu alladi la kulluhu anta qadirun alayhi wala an baadihi anta sabiru wala raayta boobu di nga gis loo xam ni tuuteen doyu la te mënoo jot ca léppam arab yi ñu yàlla mayoon fasaxa la ñu mën wax lañ wax yi wax yu am solo la gis nga léeg-léeg musiba yi am ci àddina bi yëpp ndeysaan fitna yi gën a rëy nit di ko am waa léegi wax waa ji su ma la ko doon firil firi bu gàtt nga comprendre sooy tànn di tànn ba su ko tànnee ko yem ci jabaru jàmbur jabaru jàmbur xam nga ni yàgg yàgg ndaw ci jot fit na am na xool nga ba gis te moom loo warul woon a gis fitnaal na la te mënoo caa jot musiba ngoo wakka dalika ci mbiri addina yi musiba yi ngay gis yëpp la waxkat doon wax rek ni kullul xawaadisi mabda'uha min annadari mboolem musiba yi am yëpp tàmbali ko mooy xool wa mu'damu nnaari min mustasgari sharri daay bu ngand gi lakk dëkk bi xal wu ndaw wen doon xeeba ko fi indi allahu akbar xoolal wax yi mu jotee ci am solo kullu lxawaadisi mabda'uha min annadari wa mu'damu nnaari min mustasgari sharri musiba yi nga gis yépp ci àddina nga ñibbi sa xol affaire bi métti la taaru ndaw si wala nangam wala taaru ku góor si bu dee ca ku jigéen ko donte besam ñëwagut mu fitnaal la mabda'uha min an-nazar ca xool la tàmbali daay bu mag gi lakk dëkk bi ferñeent wu ndaw wee ko fi indi mu ni kam nadratin fataka fi qalbi saaxibina فتح السهام بلا قوس ولا وحي كم نظرة فتك أكبر خول بو خول وني تاي سقل فتح السهام دنا دور دور بو ميت كم ني فت لي دالي سي ميت با غاغ لا بلا قوس تي فت اموت ولا وتر خيت اموت fettu kaay du roogi ak peles bii jam xam nga ñooy mën a ànd ba sànni mu doog lay jam tey nag am nga jam-jam bu xóot bu la métti te fettukaay amut weñ amut peles amut fatka sihaam dalay fett fett bu méttee ni fettukaay bu la fettee bilaa xawtin wala watam te fettukaay amut fa lu ko waral mooy da ngaa xool loo warul xool affaire ba ni tay ci sa xool nag garde ko xala xool xocc xoma xocc xala la ko wala fii wax gis nga kon bari na musiba yuy am ca fekk ndeysaan xoolal ko indi nit mu ne wal marku ma dama da aynin yuqallibuha fi ayuni alghaybi mawqufun ala alxatari allahu akbar mu ne wal ayn wal marku nit ki su fekkee ma dama da aynin yuqallibuha yàlla ko wërsëgal ñaari bët rek wutalul ñaari bët ci caabi di ko tëj lu ko neex mu xool fi ayunil xaybi mawqufun ala ala alxatar na ko wóor ni fi ne mi ngi ci danger li sama yegg seegul yasurru muqlatahu ma darra mubjatuhu la marhaban bi sururin aada bi darar allahu akbar mbir moo xam ne boo xoolee bu neex lool ma ngay lor te yëgoo ko mu ne la marhaban bi sururin jaa bi darar bay lépp mën ko boobu mujj nag moom a ci yéen la marhaban bi sururin jaa bi darar du ma recevoir mukk bànneex boo xam ne buy dem bàyyi maa ci naqar allahu akbar kon gars yi ñu jotee woon ay wax la marhaban bi sururin jaa bi darar xool nga day indi bànneex d'accord muy du ma ko recevoir mukk ndax gan la boo xam ne suy ñibbi aw mitit la may bàyyil la marhaban bi sururin du ma entré mukk gan boo xam ne bànneex la waaye jaa bi darar buy dikk lor la may indil bàyyil ma ko mooy lan mooy jullit bi saa bu bàyyee bëtëm muy dem di xool premièrement mooy aaya ji da laa tere am nga bàkkaar deuxièmement mooy gis nga ci sàmm bëtëm wallahi yàlla da koy defal ay tawfiqaat yoo xam ne kéemaan la yàlla da koy defal basira gis-gis ci alquran yàlla da koy defal basira ci ilm ci xam-xam yàlla da koy defal basira ci gis-gis ci seetlu seetlu am na nit ñoo xam ne seen seetlu dafa dëgg donte ay xadis bu ci ñëw li ma ci jot a seen sax dafa bàyyi waaye jëmmi seetlu bi moom dëgg la lu mel noonu moom amoon na loolu lu mel noonu moom la Maalik amoon ba mu gisee Shaafi'i mu ne ko yow mii gis naa ni ko yàlla leeral sa dënd bi ak xam-xam la te Shaafi'i di mbott mbott bu ndaw xale bu tuuti mu ne ko bu ko fayal bàkkaar kon incha allah dars biir ñëw daf mel waxtu dab nañu dars biir ñëw ñu tàmbaliwaat ci bopp laaya jooju tafsiraat ko waaye indil la lor yi mën a juddoo ci nit ci bàyyi bëtam di xool indil la tamit nag ana yan fawaid yan njariñ moo mën a am ci nit ki bu sàmmee bëtam di jëfe laay bi lépp lu suñu borom digal bii de bii ci la nañ gëm ni ay njariñ moo ci nekk jëm si ci lépp lu ñu tere nañ gëm ni ay lor moo ci nekk yàlla yàlla sontal defal ñu tawfiq dimbale ñu ba li mu bañ a nekk luy romb suñuy nopp rek jàll waaye mu nekk loo xam dañ koy wàcc ci waaqi alxayaat bi mën koo dund hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain